Serigne Touba Mbalit ñu duuxal jox ma kaas bi maa la ko wax taw rek maa la wax loolu di faral Serigne Touba Mbalit mi ay ca leen di faral Serigne Touba Mbalit mi fii ci Amérique ku am looy sànni ku am looy këppe mbaa nga am looy dóore maa ngi nii di faral Serigne Touba Mbalit mi ay ca leen ay ca leen ay ca leen di faral Serigne Touba Mbalit mi ku am looy sànni mbaa looy këppe di faral Serigne Touba Mbalit mi. waa di santaat yàlla bu baax jul Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur di sant sama Serigne Serigne Saliou Touré di ko ñaanal mu yàgg fi loolu di te wér di wax nag jër Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba bu du woon ak Serigne Touba xam fu ñu jëm yëg-yëg bu ñu am tey dafa ndax lu toll ni Bamba dey yàlla boole ñu ñu ko fekkee muy daaw ak ren kon nag sant yàlla rek ñoo ci di ñaanal Serigne Touba daal yàlla nañu ko yàlla fayal ndax amuñu fayam ndax lii lépp moom la. tey boo xoolee li am fii murit si sikkar yaay faal yi génn bàyyi faal yi génn fii boo xoolee tey yow sa xel Touba dem ndax sëñ Touba moom wax dëgg yàlla ay mbiram day fës rek di gën di fës rek man man day tey mbalit mbalit mi mi wadd fii yëpp maa ngi koy faral sëñ Touba te xam naa ne li may def nii ah du lu xeebu de sant yàlla rek ndax wax dëgg yàlla mbégte ma ci àndal sax dafa rëy kontaan lool nag tey ci bés bi kontaan ci taalibe kontaan ci Serigne Touba rek di gën di kontaan ci moom maa la ko wax. waaw waaw ndeysaan xoolal rek xoolal boobu dox te doo ci yëg dara ñu doon wax tey naan tàngoor bi a am tey nga xool xool tàngoor bi dafa mel ni Serigne Touba da koo faxas ndax kenn yëgul tàngoor bi te boo toogee bés boo xam ne du comme bés bi da ngay yëg tàngoor tey nag maanaam du 28 juillet. ah Serigne Touba woote taalibe yëpp génn. ñu naan day tàng tàngoor wu métti boo xam te tàngoor bi man yëguma ko man sëñ Touba faxas na tàngoor bi lii kenn mësu ko gis sëñ Touba rek ko man. waa di wax di gën ñuy gën a àndaat rek di leen ñaax pour ñu gën a àndaat gën a booloo gën a nekk benn gën a santaat Serigne Touba gën a jàppal Serigne Touba ndax daf ñu defal loo xam ni mënuñu ko am te bu du woon moom it ko am kon nag na gaa yi gën a boolowaat nekk benn jàppante fonkonte gën a gëm sëñ Touba gën a yaakaar sën Touba gën a fonk sëñ Touba te xam ne sëñ Touba moom du ku lay wor du ku lay nax te bu ëllëgee lañ ci xam dara du tey tey lancement la lay woon waaye suba la film bi akasa bég naa kontaan naa télé bi yàlla na jëm ca kaw ca kanam maa la ko jërëjëf Serigne Touba.